amee internet Flash Info TV gannaaw ba ñu leen nuyoo di leen jox seen wàccuwaay ñu daal di dikk ak yéen at Euh, membre alliance euh, pour la république Biledi Ahmed euh, Suzanne Kamara. Daldin dinañ ko libéré jox ko li nga liberté provisoire gannaaw bi nga xamné rek wa sûreté urbaine daal ko procureur de la république Mon nak liñ ko topé moy offense sur les autorités de l'État Mon lañu ko daal di toppee naka noonu nag lañ ko placé woon euh, sous mandat de dépôt juillet passé bi nga xam ne rek moom lañu génn euh, jamono jooju nag gisoon nañu ñu bëri daal di sàkku ngir rek ñu daal di libéré ki nga xam ne rek moom mooy Ahmed Suzanne kamara mais nag mbir yooyu le tey rek la daal di sotti ndaxte enseignant boobule di Suzanne Ahmed Suzanne Camara daal dinañu ko jox li nga xam ne rek moom mooy liberté provisoire